ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس اللهم يا ربنا ارزقنا ويوم جنة الدوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلم أولئك ربك اللهم اشف مرضانا اللهم دع مرضانا اللهم عافنا اللهم البسنا لباسية والعافية اللهم البسنا لباسية والعافية اللهم البسنا لباسية والعافية اللهم احفظ أولادنا واهدهم إلى الحق وإلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سر نساء المسلمات وأيدهن واهديهن إلى الحق وإلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين يا رب العالمين mbokk julli am di sa may soppay si yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla doole sante yàlla bu baax di sante yàlla bi ñu may kàttan may ñu fekkee ba ndeelu si waa di defataani fajar di wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi daiman abada alhamdulillahi kasiran alhamdulillahi ala kulli xaalin mooy ne ñu ngi sante yàlla sant bu amut ab amut dayoo waaye di julli si yonente bi salallahu alayhi wasallam ak waa këram ak saxaaba mi ak képp ko xam yaa ngi topp si sunnaam bi yowmal qiyaama di ñaan yàlla subhana taala ñu yàlla boole suñu waaye yàlla ñu jaama endo ko fanaano ko yàlla mi jaamal yàlla ñu defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kaata yokk ñu wér képp ku feebar képp ku yow jaamu sa yaram yàlla mi saafara yàlla yàlla fugga sa bopp yàlla yàlla delloo sa sago yàlla subhana taala may ñu wér yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu may aafiya juliti juliti yàlla yërëm leen yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdat min riyaadil janna ma allazina anama allahu alayhim min annabiina wasiddiqina washuhada wasalihin wasallam ulaika berikan dawiyya ala samani arin la halin fiha ikut nasir sirat mustaqim ya la mujallan si fitna musibak bala shaitan ya la warsagalen ham ham warsagalen lige warsagalen anda no ba jigen ya la samalen ya la panu hewali aduna hewali ala her mujallan safara mi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amin ya rabbal alamin mbokk ñu ñu wa fi daare muhammad sallallahu alaihi wasallam ti nak ñu indi leen faida beneen jëri ci li nga xam ne mooy ñaan wala li nga xam ne mooy sujud yonent bi alayhi salaatu salaam si hadis imam muslim dañu wax ne rek jaam bi nay jegeñ boromam saa bu sëppee jeexam si suuf waaw saa bi jaam bi sëppee jeexam si kaw suuf mu ngi gën a jegeñ boromam ndik jeex dafa toll si doomi aadama foo xamee ne macha allah e, doomi aadama dafa fonka jeexam ba tax na loo fa teg rek mu génne ko banaa bëggut na sa lu taxa si jeexam bi waaye nag nga gis ja doomi aadama bi wala jaam bi fi moo jébaloo si borom subhanahu wa taala mu maaga bi wane yàlla subhanahu wa taala rek rek yaa yelloo sujud lu tax suma jébi duma ko sujudal kenn ku dul yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñu wax foofu nag njëriñ sujud mooy lan si xadis imam muslim mu ne aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa saajidun fa aksiru du'a yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñu ñaax pour ñu bari lu ñoo ñaan suñ sujudee bokk julati nit ki soo sujudee béréb la boo xam ne place la boo xamee ne makkaan la boo xamee ne yaa ngi jegeñ sa borom lool lool lool lool ndax xam nañ ko ndax xamuñ ko yow sax mu ne nañu bari nañu bari lu ñoo ñaan suñ sujudee mbokk jullit yi ah kañ nañ ñaanal suñ bopp ñaanal suñ jaboot ñaanal suñ réew ñaanal bépp jullit waaw ñaan nañ bari ñaan suñoo sujud mbokk jullit yi ndik makaan boobu place boobu place nangu ñaan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag ndik lan foofu la jaam bi gën a jegeñ boromam yaa ngi taxaw ne allahu akbar ba léegi yaa ngi jege sa borom yaa ngi rukku yaa ngi boo dem nag ba sujud diggante boobu yëpp yaa ngi jege sa borom di allahu akbar rek amul dara lu rëy sa kanam ku dul yàlla amul dara lu màgga sa kanam ku dul yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom nga ba ne ko allahu akbar waaw boobu ismu tabdil boobu yàlla rek a ko moom yàlla rek a màgg waaw boobu wax nag si jamono jooju yaa ngi si taxawaay boo xam ne yow yaa ngi diisoog yàlla yàlla di la xaar nag di xakkañ di la déglu nga jàng fatiha jàng saar ba su e, roko dal di dem sujud nag mu ne xakkañ léegi nag egsi nga jegeñ nga ma fii nag ñaanal ñaanal sa soxla ñaan ma man yàlla bi wax si alquran ad'uuni astajib lakum bon mbokk julliti bi faida bu rëy la maanaam njëriñ bu rëy la bi alayhi salaam di ñu ko wax mu ne aca leen bari lu ñoo ñaan yàlla suñ sujudee ah kañ di si gis nañ ya sujud di ñaan yàlla di ñaan ba seen xol fees ñu jooy te mu ne bot bu rongoñ bu rot si ragal yàlla si xelaat yàlla kër yomal qiyaama dina bokk si ñi nga xam ne yàlla ne leen këral kër boo xam ne benn kër dafa am lu kër yàlla ba waaw waaw mbaqa fi waaw ni ki si sujud di ñaan yàlla ba rongoñam rot moo yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ku rongo ñam root si e, façon yooyu yàlla subhaanahu wa taala kër yoomal qiyaama di nga bokk si ñu moo teral te ba waxtu boobu wala place boobu place sujud boobu e, place na nangu ñaan la bon yàlla ñu yàlla nangu suñu ñaan yi yàlla yàlla nangu suñu ñaan yi lépp la ñu ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nekk lu gën si ñun yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla defal ñu xéewal sàmm ñu aar ñu teg ñu si yoon siraatal mustaqim